بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وخديمه وسلم تاملو عبد الرحمن وركان سيدنا الحسن سلام رضي الله عنه ونفعنا بآمين بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بسم الله والرحمن والرحيم جرم ndigal la kat lu war a war kuy jullit qabla salaam badaatu bismillahi warrahmani warrahimi ngir lu war a war ci kuy teg ca asalaam aleykum saa ya doon jullit ten bokku gëm sayiduna xasan salaam moo tax ma jug fa booti man fa baale laa xam jëm ca moom fas yéene ñëw bakkaat ko moom kañaat ko baay xasan salaam jëmm woon ju fi awoon calla sa la fi dikoon ca pegg njaareem la xewoon moo yàgg ñëw xasan salaam jug naa ne ñokket jubluko ngir jëmmi yàlla ak sant la war na ak ko xormaal ko baay xasan salaam ma jug te tambulee ti man wayati ba man kookaay ku baax kañ ñépp xam te moo di sëñ Hasan Salaam ku yàgga baax te gën a gën tey ku ñu xormaal fa boroom cërëm bërëy lool fa moom boroom Hasan Salaam ñëwoon te yàgga del siwaat dëkk liggéeyal buur bi mat ci ñi fi nekk ñam jota faat jëmmam ja dëgg mooy salaam sëriñ xasan kenn xamu ko te ko xam-xam lewu ko te mu xam jariñ na ko tawfiix la si xasan salaam loo mas la dégg def na ko loo mas la foog waxoon na ko e faddi dindi yorna ko yalla kojo hasan salam ɗay hatleedi dimbule ɗaatere yittey digele ɗaa kuppe yittey begele deggelte toppu baayi salam barkeelu tuddu way juram zainabu moodi awturam ku sell baax te ami ndam moo yaayu Salaam daa mën a jaamu tey liggéey fa kër sangam ba mastadaay loola waral payam gërëy pay gaa di Salaam feeñ ci ay yanam biir te biire yàlla moo ko ber daa yàgga ñëw moo tax mu jaar fu yéeme del si bàyyi salaam feeñ na ci ay anam yu bir te biire yàlla moo ko ber daa yàgg ñëw moo tax mu jaar fu yéeme del si baay salaam bu mu yore tànk bu ndaw ci wàllu zaaxir doon lu ndaw daa yéeme woon lool ba fa suuf si ci salaam ba mu yoree tànk bu ndaw ci wàllu zaaxir doon lu ndaw daa woon lool ba fi suuf si cey asan salaam ay kilifaam yéemu ca woon sax di sakku ñaan Cheikh Ibra Faal defoon na ñaan jëme baay Hasan Salaam njëlbee namit wutuli kër dëkkul fa nit la jaar fulint daa saxoo zikar lu booba baay salaam su ma la dee way du ma man te yéeti saa ma man te sama xel mi day gëlëm ci may baayaasan salaam su ma la dee way du ma man te yéeti saa ma man te sama xel mi day gëlëm ci may baayaasan salaam te sama yéene gën a duun te lu ma wax wax du ma doon ku mën a lim ya moom daara yi may xasan salaam yor na misaalum géej ci man mantil ma kon du man xuus ba ca bël ba ndaxte kon ma diig fa bàyyi xasan salaam yor na misaalum géej man mantil ma kon du man xuus ba ca bël ba ndaxte kon ma diig fa baay asan salaam kenn du fi wax ba mën a wax sama yi mbaate sax mu wax jagle yi moom day mujj sax di gëm a kay yéem bàyyi salaam tey li mu xettali ci ruux goog waaja dem na ba funuux te texewul dëkkey bërëx mu jaar fa may ko luy salaam baraana waaju faatu woon am xaq jum fi bàyyi woon te ña ko xam-xamuñ ko woon ka tax ñu xam koy bàyyi salaam bu ñu ko dégloo mu ne leen def leen sarax bi dolli ñaan ngir li mu gàddoo waraloon ba léegi mostil fi salaam bun ko defee kooka texe dem aljinaan di tex-texi mbokkam yasant tey fexe tey bakk baa yasan salaam amaana waaju ñëw fa moom mu wax ko ndaw yu ne fa moom te booba kooka denculoon ci yàlla baa yasan salaam amaana waaju ñëw fa moom mu wax ko doom ya ne fa moom te booba kooka denculoon ci yàlla baa yasan salaam daawu fayam daana la wax góor yaag jigéen ya mbaa mu wax waxtu wu feeñee nan ko jox turam wa mooy xasan salaam gisaana waaju ñëw fa moom te repp ngir fanam wa moom jeex na tekat yëgul ko moom ba ñëw siyaar si baay salaam bari na lool ñu muttinu ci wet yu mel ni ngir dundu yàlla ko yor waaye buur bee ko may xasan salaam tuddoon na or fii ak jamaa c'est pas possible et comment te booba yàgg na xanaa yàlla ko salaam xamal ne nii mu melekat nii mu meloon mu xat mosula toog waxtu wu jot muy wër fu muy maye salaam xamal ne lii yéeme na kat nii mu meloon taxul mu xat mësula toog waxtu wu jot muy wër fu muy maye salaam xool nit waxal ko ab digam gis nit waxal koy toj tojam nit ñëw nga wax ko ak texeem sun waaja mooya san salaam antaqana allahu alladi antaqa kullun mooy li fii lum wax ndigal la duy kafe góor yàlla mooy hasan salaam wër na ci réew mi fu ne yow génn mi yëkku yow laajal sa ba kon nga naw te gën a sopp bàyyi salaam cey ñimu mu xettali ñu dee cey ñamu tee ñu dem fële dinaari kii moo ka gore te yéene ñépp kay salaam daa yàgg ñëw ci àdduna xeexu badar ba songu na ca noon ya xeex na jekku na ñu laat ko moom asan sala nee na yonen bi moo ko jot ci xaalisam ci li mu njëg goreel ko yit mu doon ku set ku ñépp xam asan sala ne booba zaydu la tuddoon zaydum nu xaarisa la woon kii bari ndam te yàgga doon jàmbaari lislaam bay salaam isibtu ne feeñoon na fa ne booba yit soxna la fa salma la tuddoon yor na fa ab restaurant asan salaam farans gu njëkk gi fi ne turwaay la soppiku fu ne teppool la tuddoon boobale kii moo di kan salaam kenn xamagul luy martabaam kenn dëjagul ay darajaam moo tax ba ñépp faf ne kaam tey bëgg Seex Xasan Salaam xoolal ma wan waxtu fi min wi tegal na ñeen fukk ak juróom ñeneent ci minit may tagg Seex Xasan Salaam xoolal ma wan waxtu fi jot min wi tegal na ñeen fukk ak juróom ñeneent ci minit may tagg Seex Xasan Salaam saa xol bi sedd na ci ci lii ma nekk ngir jëmmam te ma billahi barke baay salaam saa xol bi sedd na ci moom ci lii ma nekk ngir jëmmam te ma billahi barke baay salaam bu ma nare jooy dem tadi, jarna na ko sax du ma faral ma njubadi jubal ma may ma ay salam. riir naa ci ay mayam ba mi fu mu toll di jax tey juqi tey joxe basax sax nit ñaa ngi laaj kuy salaam xaaral ma dil si wax ca moom ngir la mu yor du jeexte moom ndawul sëriñ bamba la moom waxam la baaya san salaam xaaral ma dil si moom ngir li mu yor du jeexte moom ndawul sëriñ bamba la moom waxam la baaya san salaam ci waa këram la bokk moom tey bàyyi mit fa soob na ñoom mu koy liggéeyal tey ndonoom ci jaam ñi baaya san salaam ci waa këram la bokk moom tey bàyyi mit fa soob na ñoom mu koy liggéeyal tey ndonoom ci jaam ñi baaya san salaam baara mbàkke rëkk xarit la woon ca moom bu doy te lu mu yor faf ko ko may warloona baaya san salaam sëñ baara mbakke rek day xarit la woon ca moom bu doy te lu mu yor faf ko ko may warloona baaya san salaam may na ko ñeent ci gawar te mësuñoo jug ci defar te xettaleelu tar ñu far sëñ baara sëñ asan salaam cheikh fallu yit waayama woon ju ko bëggoon te ne ko woon del waxa wax buur bee la wan wóolu la kay salaam cheikh fallu yit waayama woon ju ko bëggoon te ne woon del waxa wax buur bee la wan wóolu la kay salaam te boo demee fa kër gu mag njaareem la gis fa kër gu mag gu sell baax te yooyaat moo ko defar jox baay salaam Cheikh Fallou moo ko yóbbu moom Makka fa ñépp bëgg dem mu dem fa Makka aj ajam del di séddale yi salaam Cheikh Fallou moo ko yóbbu moom Makka fa ñépp bëgg dem mu dem fa Makka aj ajam del si di séddale yi salaam mooy baayu moo yóbbu woon sëriñ asan màkka bu leen ko weddi nii laa teg cab tabax kër baayu salaam mooy baayu mbeen mu yóbbu woon sëriñ asan màkka bu ko weddi nii la ame teg cab tabax kër baayu salaam ciy fa mu jaar ak lamu mu aar ak ñamutee ñu tabbinaar rammu na fekk na deegu gaar ci jëmm ci yasan salaam cey fa mu jaar ak la mu aar ak ñamutee ñu tabbinaar rammu na fekk na déegu gaar ci jëmmu cey asan am na ci kum fanaana loon te la for bët booba woon ngir fa mu dal moo jege woon ay xambuli kaw lax la woon am na ci kum fanaana loon te booba woon ngir fa mu dal moo jege woon ay xambul kaw lax la woon mënula jaar fenn ba wey te joxu leen njariñ lu rëy ciy baay asan yaara may sanga di baay asan salaam amoon na xaatim bu newoon ca yaramam wa foofa woon am na ñu am tawfiq juduun mu wax ba wan leen ko salaam waxtu seddee ma nga fa waxtu wu tàngee lam ko fa xaatim lamboona lu nit kese yor ko cey salaam waxoon na xaatim yore suuf see ki géej gi moo yore yu rëy a rëy du ma sori kiimtaan la baay asan salaam wa maa raaytu mislahu xel waa jugi si mislahu kemam amul mooy mislu kenn la baay asan salaam sëriñ asan kenn la woon ca booba woon ba wile yoon kenn gisagul kemam feneen buur bee ko baddil bàyyi salaam sëriñ asan kenn la woon ca booba woon ba wile yoon kenn gisagul kemam feneen buur bee ko baddil bàyyi salaam ku mel ne kii te du laaj hadiya mukk du ko laaj wutuli taalibe ku lum yore jox la ci salaam ku mel ne kii te du la laaj hadiya laaj wutuli taalibe ku lum yore jox la ci salaam xam nga di waxte xamuloo foo mën a yam lii sedduloo ku nar gas géej bëgguloo noppalu gongo salaam xam nga di waxte xamuloo foo mën a yam lii sedduloo ku nar a géej bëgguloo noppalu gongo mooy salaam wóor na ma wóor yàlla ne man laa xam ca gën naa sakan ci lii ma wax ngir bàyyi xasan géej la ku bu am salaam wóor na ma wóor yàlla ne man laa xam ca gën naa sakan ci lii ma wax ngir bàyyi xasan géej la ku soobu am salaam te sant naa sëñ aadama moo tax ma xam kii jaadu la ci sëñ bi farluna na ci wane ku yasan salaam te sant naa sëñ aadama moo tax ma xam kii jaadu na la ci sëñ bi farluna na ci wane kuy xasan Salam. Ziyara na sun salihu. wa cheikhuna mam xaadimu ziyaara maam daa mbokkumu jaboote fépp yaa salaam te jëfi julli ci yonen ñaanal fi ñépp gën doon ay soppi yuy jariñu ñun faw ci baaya san salaam te jëfi julli ci yonen ñaanal fi ñépp gën a doon ay soppi yuy jariñu ñun faw ci baaya san salaam salli ala sayidina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 يرجفتي برم طوبة جارانا سيدنا الحسن سلام